beneen xaaj bi tudd tawxidul qasdi wa talab ñu leeraloon ne tawxidul maarifati wal isbaat bi nga xam ne ci la nekk nii mooy tawxid bi nga xam ne liñ sàkku ci nit ki ngir mu am tawxid bu mel noonu mooy ab xam-xam bu mu war a xam la ak mbir yoo xam ne daf ko war a nangu maanaam saxal ko moo tax ñu tudde ko tawxidul maarifati wal isbaat ñu ne woon nag boobu xaaj day làmboo ñaari xaaj ci biiram ñaari xaaj yooyu ndax am na ku xam mooy yan ñaari xaaj la tawxidu rububiya ak tawxidul asmaai wa sifaat ñaar ñooñu soo leen boole ñoo tudd tawxidul maarifati wal isbaat mooy tawxid boo xam ne da da war a xam moom li ñu doon jàng nii lépp di ko firi pour nit ki xam ko la bu ko xamee nag mu nangu ko nangu googu moom la ñuy tuddee saxal moo tudd isbaat moom la ñuy wax isbaat kon bindu tey bi moo mottali xeetu tawxid woowu jëkk woowu nga xam ne moo làmboo ñaari xaaj yi waxoon nañ tawxid rububiyya mooy lan borom bi tabaraka wa taala mooy ci bind mooy ci wërsëgal mooy ci def lii mooy ci def lii yu mu yeyoo ci ay jëf mu yëtal ko ci ay jëfam kooku mooy tawxid rububiyya mu tegoon ca nag tàmbali di la leeralal tawxiidu sifaat mooy lan muy melokaan yi sun borom tabaraka wa taala wax ne noonu la mel nga nangu ne noonu la mel loolu nag moom lay mottali tey moo tax mu tàmbalee fii mu ne wa annahu yura bila inkaari fi jannati alfirdawsi bil absaari wa annahu neke moom sunu borom tabaraka wa taala yura des na ko gis bila inkari gis goo xam ne kenn mënu koo weddi fi jannati lfirdawsi ci ajjanay firdaws bil absaari ca bët ya maanaam nit ña danañ ko gis ak seeni bët ca ajjana dëgg la borom téere bi jannatul firdaws la wax firdaws mooy àjjana gi gën a kawe ci àjjana ya kooku la chaque année ña fa nekk danañ gis seen borom waaye yeneen àjjana yi ci desit sët ña fa nekk danañ gis seen borom kon gis yàlla tabaraka wa taala jannatul firdaws jabowu ko waaye ku tàbbi àjjana rek da nga gis sa borom ndax loolu tiraanga la joo xam ne mooy tiraanga ja dàq fa àjjana نانا كون دانين جيس سين بروم بو ألغيه لي وانا نك بروم تبارك وتعالى ديس نكو جيس اي دليل يو باري لا ام بوك نا سي يو خامني القران لا ام نا سي يو خامني سنه لا يا القران بوك نا سي لي بروم تبارك وتعالى واخنا وجوه يوم اذن ناظره الى ربها ناظره وجوه امنا اي خر كنم yow a idi bu bis boobee wujuhun yow ma idin am na xar kanam yoo xam ne bu bis boobee naadiratun yu naat lay doon ila rabbiha jëm ca boroomam naadiratun a xool lay doon maanaam yoo xam ne dañuy xool seen boroom xar kanam yu naat yu xool seen ko boroom kon kooku leer na nañ ne dalil la borom bi tabaraka wax na ci ñi nga xam ne ñooy noonam yi na ci bu ëllëgee mooy xañ leen ñuy gis seen borom moo tax mu ne kalla innahum an rabbihim yowma idin la mahjubuun yowma idin la mahjubuun nee na ñooñu bu gis boobaa dañu leen di yiir ba duñ gis seen borom ñoom yéefar yi maanaam duñ ko gis gisu goo xam ne gisu bànneexu la kon yooyu yëpp day tegtale ne borom bi tabaraka wa taala des na ko gis ëllëg sax na it ci xadis moo tax borom xam-xam bi junj na ko léegi borom téere bi nee na kullun yaraahu ru'yat al-iyaani kama ata fi muxkami al-qur'aani kullun kenn ku nekk ci waa ajjana yaraahu dana ko gis ru'yat al-iyaani gisub jàkkaarloo maanaam bi caa ne ab image lañ lay wan wala écran wala dara waaye sa borom ngay gis كما أتى نمدك في محكم القرآن في القرآن الكريم ما نعم نمدك في القرآن القرآن لا يرلك نون لي أمي بوابا كنت القرآن لا يرلنا بوابا تدلنا لسانك بين آية بوخمنا برغم تبارك وتعالى وخنا كنت جسنا كجس لكن نون بينن آية برغم تبارك وتعالى دفني للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وزيادة نيغا خمني dañoo gëm rafetal seen ngëm am lislaam rafetal seen lislaam muy seen i yàlla ñooñu borom bi tabaraka wa taala dana leen faye ndool leen ndolleen ndolleen loolu mooy lan yonente bi sallallahu alayhi wa moo ko firi ci saxiixu muslim mu ne mooy gis dañuy gis seen borom yonente bis xosee firi loola firi mu ko féete kaw amatul nee na gis da ngeen gis seen borom ba ëllëgee mooy ndol ndolleen li nga xam ne moo am ci biir àjjana yàlla na ko yàlla defal kon kenn ku ne dana ko gis gis goo xam ne gisu jàkkaar loola nim saxe ci alquran mu ne wa fi xadiisi sayid al anaami wa fi xadiisi sayid al anaami min gayri ma shakkin wala ihaami nim saxe ci alquran ak nim saxe ci xadiisu سيد الامام انام صنغب نتني الجني نم صحي سموم من غير ما شك تلو امول شك ساك ولا ايهام امول تتم ام ام لنت ولا بلي تود دفلو دفلو دفنا نانغم دفنا نانغم كو دفلو امول فوفو شك ساك امول فوفو كون صحنا في حديث صحبو ورو ورو ورو ورو رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا صحاب دونها لأن رؤية حق جسو دق دق ليس يمترونها بو خمنا دون يران كبوبوبا كان دون أكتب لنا جسنا أخو جسو يوم يبقى جس كالشمس من لجم تبي صحوا جسو فكيني دفل يعتمل أي نيس تمل أي نيس jant bëccëgum dara kam bu weex tàll nga di ko xool noonu ngay gise jant ba nee na bu boobaa noonu ngay gise sa borom moo tax mu ne ka shamsi mel ni jant ba saxwan ci ak leer la saxaaba déet ay niir doonaha di dox sa digganteeg moom jant bu leer naññ boo xam ne niir amul sa digganteeg moom loolu mu ngi ci junj beneen xadis boo xam ne mooy xadisu abi hurayra ak jarir ابن عبد الله البجلي ابو هريره نيا دفع امواج نيو النبي صلى الله عليه واله وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يو يونت بي الله بن دخ نون ني دنان بي سون بروم الله صلى الله عليه واله وسلم نكو هل تضارون في رؤيه القمر ليله البدر am na riwaay boo xam ne hal tadaamuuna fi ru'yati alqamar leylat albadr ndax ndax danañ gis sunu boroom waaye xam naa la tax mu koy laaj mbir mi da koo xaw a jaaxal maanaam ñi nar a dugg àjjana nañ baree mbooloo moom mépp ak nañ baree nu seen boroom di leen feeñoo ñoom ñëpp ñu ànd di ko gis ndax ayit boo xam te du ci am ak ku njoole ko muur ku gàtt kaas xeet yooyu war na caa mën a am bu boobaa waa ji foofu lay laaje yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax weer wi su fekkee ne dafa feeñ guddi fukki fukkeelu guddi ak juróom mu nekk ci kaw asamaan si dara muuru ko ndax su boobaa su ngeen koy xool da ngeen mën a lorante hal tudaaruuna ndax da ngeen di lorante maanaam kenn di muur kenn wala tadamuna wala da ngeen di buuxante defe naa ne xol wéru wi ni bo xamte wala nga nan topal sama diggante ak wéru bu ma gis ko dana amul tegaat ca ne ko hal tudaruna fi ruyati ash shamsi la sahaba dunaha ndax da ngeen lorante ci xol jant bi su fekkee ne wenn niir amul ci diggante bi يقول لا يا رسول الله من كذلك ترونه نون جيد كوي جيسه وقال لك حديث بومي في بخاري المسلم يونس بي صلى الله عليه وسلم لين كون نون نجين دي خولي وير وا ديكو خولي جانت با تا كو غود كا دو مور كو غات كا كو جاغي كا دو لاق كو سوري كا تيتم lu bët naqari naqari moom bu xoolee bu fekkee bëtt nga fa bu xoolee dana seen jant wala bu xoolee seen weer wa weer woo xam ne am na fukki guddi ak juróom ci digg asamaan sa lay nekk fees del bu jant bi soo ba mu lëndëm foo jaar da nga seen weer wi ndax da gis leer gi nee na su boobaa noonu ngeen di gisee seen borom su ngeen nekkee ci àjjana ñu xam ne nag foofu li ñenn ñi sikki sàkk ci xadis boobu di wax ne daa mel ne nuróole yàlla ak weer wi wala nuróole koog jant bi daa ne ci xadiis bi loolu njuumte loolu nekku ci kooku loolu amul foofu ndax borom bi tabaraka wa taala kenn du ko nuróoleeg mbindeef kenn du ko nuróoleeg mbindeef ndax nee na laysa kamislihi shay'un wa huwa a albasir dara melut ne moom waaye nuróole gi lan la tashbihu ruyati bi ruya maanaam se gis gii ngay gis jant bi moom lay nuróolee gis ga ngay gis sa borom waaye nuróole wuñ jant bi ak sa borom wala weer wi sa borom gis gi ngay gis weer bi ak gis gi ngay gis jant bi loola lañ la won ne noonu yi nga koy gisee te dara muuru la su boobaa noona nga koy gisee te dara du la muur gis akub gis la waaye du nuróole mbindeef ak ka bind mbindeef yàlla dara nuróowut ak moom ci dara def naa leer la kon ne ru'yata xaqin maanaam danañ ko gis gisu dëgg boo xam ne du misaal du gént du lenn gis la laysa yamtaruunaha boo xam ne amul benn sikki sàkka ka shamsi nañuy gisee jant ba sax wan fekk mi ngi leer nañ laa laa saxaaba amul wenn niir duunaha dox sa digganteeg moom هنا وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه وخص جغل من أولياؤه بيتمية يبيت سنبرون تبارك وتعالى موين يأمون جميع يالله تراغلكم وخص جغل من buñ ne arab bu ne lii xaas la ci diw mooy spécial la pour moom yoonu keneen nekku ci kon waxus sa jagleel nañ awliyauhu péetéem ya mooy ñu féeti sunu borom tabaraka wa taala bi ruyati te gis ga kon péetéem ya muy wàlli yoom ya ñoom dong ñoo ko gis bu ëllëgee keneen du ko gis ñooñu mooy ñan mooy ñi faatu yóbbaale ak ragal yàlla aku ngëm yàlla wàllu yi nag buñ ko waxee lu bare bari ci nit ñi dañuy defe ne mooy kuy jommale maanaam koo xam ne day jaar ci kaw ndox mi di dox wala muy naaw wala ñu koy suul buñ dikkee fekk mu sulliku wala yu mel noonu waaye déedéet loolu xar baax la xëy na wàllu yi mën naa def lu mel noonu waaye nag loolu du mandarga may wone ni kooku wàllu yu la mandarga may wane ne wàllu la ñaari mbir la al iman ak taqwa وربنا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون ولي يلا يا موسى بن تبارك وتعالى نانا نيوني امنو لي ني راغال امنو يي لي ني تيت الله ملي داني نيوني موي نيال من الذين امنوا موي ني گم يالا وكانوا يتقون تفك داني دون راغال سين بروم نياري ملوكار يوي كوكو يوبالي سي ولي يالا يي نغا بوك موتاخ نيت نييب ñi yàlla mas a bind ñaari xaaj lañ ñenn ñi wàlli yu yàlla lañ ñi si des noonu yàlla lañ leneen amul ci diggante bi ki gëm yàlla topp ab yonentam jaar ci siraatul mustaqim kooku wàlli yàlla la ki yàlla mooy ko jaar di jaar ci weneen yoon kooku yàlla la keneen yi ñoo xam ne ñenn ñi wàlli yu yàlla lañ ñi si des doonuñu ko loolu amul lu dul su fekkee daa am ci seen biir ñoo xam ne am nañu gëm yàlla ak ragal ña ci des ñàkk koo am ñi ko amul moom duñ mën a nekk wala yu yàlla li fee góorgóorluwuñ ba agsi fa ñooñu agsi kon góor góorgóorlu bu wéral sa ngëm fexe ba am tawxiid mucc ci bokkaale fexe ba taqwaa nga am ko mooy topp yàlla ci ay ndigalam ak bàyyi ay tereem te boo koy topp ci ay ndigalam nga teg ko ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na mu ko doon defee loolu mooy tax nit ki am iman ak taqwa kon iman bu fekkee ne taqwa da caa tegu ñoom ñaar buñ àndee la muy jur résultat ba mooy al wilaya am nit ka day daal nekk wàllu sun borom tabaraka wa taala moo tax mu ne wa xussa bi ruyati awliyauhu fadilatan mu ne loolu nag ngëneelu sun borom tabaraka wa taala la maanaam ngëneelam moo tax mu may leen ñu di ko gis waaye bu ko neexoon mën na leen a tàbbal ajar ñuy xéewlu ba faw te duñ ko gis te duñ ko gis waaye nag ci ngëneelam ci la leen booleele ñu gis seen borom mi nga xam ne moom lañ doon dégg nag di ko jaamu ñu dem nag ba jàkkaarloog moom wa xujibu aadaauhu ni nga koy firee da nga naan wa aadaauhu noonam ya nag xujibu muur nañ leen ba duñ gis seen borom bu ëllëgee mooy kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubuun ñooñu bu bis boobaa dañ duñ gis seen borom kon gis nga séddale séddale koog nit ñi gi ma la wax na la ñaari xaaj lañ ñenn ñi ay awliya lañ ñi ci def ay aada lañ ñi féete yàlla lañ ñi ci def ay noonam lañ moom la borom téere bi di junji foofu moo tax mu ne wa xussa bi ruyati awliya'uhu fadilatan wa hujibu a'da'uhu maanaam ñooñu rek ñoo fi ne ñeneen amu fi wali yi ak noon yi wali yi mooy ñi ko ragal topp ko noon yi ñooy ñi ca des yàlla na yàlla boole ci wali yi yokkoon kon daal dafa mel ne jàngal na la lenn ci melokaanu suñu borom tabaraka wa wax na la lu aju ci melokaanu wàcc gi suñu borom tabaraka wa taala di wàcc ba ñëw ci asamaan si gën a jege jàngal la it dikk gi muy dikk ëllëg ngir àtte diggante nit ñi tey mu joxal joxaat la melokaanu gis gi nga xam ne nit ñi danañ ko gis seen borom kon loolu lépp ci melokaanu suñu borom la toog fi nag di lim lim melokaani suñ borom yi sifaat yi loolu lu jafe la moo tax rek mu daal di tëje bunt bi ci benn règle générale pour nga xamee ci lépp lu aju ci buntu sifaat yi nga mën cee fër ij maanaam nga daal di xam lan mooy kañ ngay xam ne lii ci melokaanu yàlla la bokk ak bokku ci mu ñëw mu ne la wa kullu ma lahu min alsifaati أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول وكل ما لبك لو خمني له نيال نكو ممسون بروم من الصفات في أي ملوكان لبك لو خمني أمنك في أي ملوكان أثبتها ملوكان يو خمني سحل نكو ممسون بروم في محكم الآيات في القرآن موي آي خرانيا لولا موي القرآن أو صحة ولا موير أو صحة ولا موير فيما تلغى خمن قاله وحنك الرسول يننتظر لولا موي حديث ويريا كون دلنا لب لو خد ويرنتي لب لو خد سنو برون تبارك وتعالى أمنك في أي ملوكان يو خمن سخل نكو في القرآن ولا مبر في حديث يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحقه لم ييو حقا التسليم مودي اك جخه سا بوب سي لولا والقبول اك نانغو كو مانام نانغو كو نانغو بو خامل دو سي ام لوي دين دين كوك مو تسليم كون بيب ملوكان boo xam ne sax na ci alquran wala mu sax ci sunna lan moo ci taxawaay jullit ba nangu nangu ne melokaan boobu sax na mu teg ci ne kama نمرها صريحة كما أتت lahu اعتقادنا nee na اقتضت danañu ko rombal نكو muy lu bir كما أتت نمدك مع اعتقادنا أن نسن الفصل لما نيال لنا خمني اقتضت تكتلنا له نيالك ولا أحسنك لم بدوخوه موي من ملكان وبرم بتبارك وتعالى ملكان ونبه موخم أقواتك ولا أدك ولا دين لا وخنا لي أبلوخ wala leneen lu dul loolu nee na la ci jaadu mooy nu gëme ko nam dikke mooy nu rombal ko nam dikke mu leer nañ ñi ànd ak fas nag la nga xam ne moom lay tegtale ci maanaam bu fekkee dikk la danañ gëm ne loola ak dikk la dikk pour atte nit ñi bu nee wàcc la danañ gëm ne loola ak wàcc la ñu bari nag niñ ko waxoon ci bind bu weesu lan moo tax buntub sifaat yi ñu di ci am sikki sàkk nga di ko dàq nga xam ne dañ naan rek euh, melokaani suñ borom daal yi ci xel nangu yooyu lañuy ñuy saxal waaye yoo xam ne xel nanguwu ko daal yooyu duñ ko saxal yi xel nanguwut lu mel boo demee ci euh, téere yi ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a xóot ci bunt boobu ci achaira yi ci dàq ci ci téere yi raas yi wala yu nuroog moom dalay wax ne wàcc moom warunoo jàpp ne suñu borom tabaraka wa taala day wàcc ndax kuy wàcc da ngaa jógee ci place ñëw ci beneen place te suñu borom tabaraka wa taala xajut ci place xam nga kooku dafa bëgg a sellal suñu borom tabaraka wa taala ba koy yëkkati jox ko maqaamam moo tax muy wax loolu la ci jublu maanaam doonuñu ay noon yoo xam ne dañoo jóg pour yàq diine waaye nag dañoo jóom dañoo bëggoon a jox borom bi tabaraka wa taala place boo xam ne lu mu gën a soreeg nit rek moo ca nag faf nag ñu juum nag far ba lam saxalaloon boppam ñu far weddi ko nag te looloo yées dañ ne nit liñ xam ci wàcc noonu ci doomu aadama ñu nee wàcc nag mooy daa nekkoon ci kaw bu mu yàgg mu ñëw ci suuf ñu leen waaye di ngeen a fàtte ne borom bi tabaraka wa taala dane woon laysa kamislihi shay'un ginnaaw jëmm ji ci boppam bokkul ak dara nuróowut ak dara te nangu ngeen ne am na jëmm te nit am na jëmm waaw foofu nu ngeen def ba génn foofu ne ah xanaa xam ne rek jëmmi nit bokkul ak jëmmam xam nga kon melokaan yet noonu la melokaan yi bu ko joxee turu wàcc yow turu wàcc bi nga xam ci doomu aadama jàppal ne bokkul ak woowu dëgg la nag baatu wàcc ci arab moom loolu lay firi waaye nag melokaanu wàccu sunu borom tabaraka wa taala kooku kenn détaillé lu la ko joxuñu la détail bi dañ ne rek dana wàcc kon lan moo jaadu foofu mooy gëm mooy xam lan mooy maanaam wàcc ba nga saxal ko moo tax ñu tudde ko tawxidul maarifati wal isbaat nekk noonu itam lépp loo xam ne lu ci aju la kon muy wàcc muy dikk muy ab loxo muy leneen lu mën a doon ñu bari dañoo defe ne boo nee yadullahi da nga ko war a firee leneen am na ñoo xam ne dañ koy firee kàttan waaw loolu moom la ñu tudde tawil dañ ko firee kàttan ak suñu borom lu tax ñi ne ah loxo kat kon day doon ab cër ab cër moom bindee ko koy am te borom bi daa war a soreeg mbindeef yi ne leen juum ngeen juum ngeen ndax borom bi tabaraka wa taala moom ci boppam moo wax lim am moom tudde ko loxo su fekkoon ne kàttan la borom bi xam na qudra mën na ko wax ba mu bëggee wax qudra daf ne allahu ala kulli cheyin qadir waaye bi mu fa bàyyee qudra moom yi ne yadd yadullahi fawqa aydihim kon xam nañ ne loxo la moom suñ borom tabaraka wa waaye dañ ñu xam ne loxo ba muy wax de bokkul ak loxo bindeef bokkul ak loxo bindeef loolu faaw mu ñu am ci fiq xàmmee loolu lu ko may da ngay defe ne saxal melokaani sun borom tabaraka wa taala yi nuróole ko ak mbindeef yi te bokkul ak nuróole ko ak mbindeef yi moo tax même aay boobu mu waxee ne laysa ka mislihi un daf caa teg ne waxu samiul basir te pourtant nit ci boppam sami la basir la aay boobu rek boo ko déggee buntub sifaat yëpp day leer ci yow dara melul ne moom ba noppi ne moom day dégg day gis mooy aji dégg ji mooy aji gis ji pourtant nit aji dégg la aji gis la kon foofu li nga fi mën a li la fii génne mooy nga xam ne kon day dégg dégg bu bokkul ak boobu nit di gis gis bu bokkul ak boobu nit loolu nag mooy règle général bi ci mboolem melokaan yi lépp melokaan bu mu saxal boppam boo koy firi na nga dégg maanaama ak la muy firi ci arab ak ci weneen làkk bu mu mën a doon bu dee loxo nga xam ne loxo la loolu lay firi bu dee bët ñoo xam ne lii bët lay firi waaye rek bu mu tax mukk nga defe ne day nopp bu bët bu mel ne boobu nit wala loxo bu mel ne boobu nit comme ni nit amee loxoom bu ñàkk solo bu tuuti bu doyadi dëppoo jëmmam noonu la borom bi tabaraka wa taala amee loxo nag bu dëppoo ak maqaamaam ma nga xam ne moo bind doomu aadama yi kon loolu ay mbir yu ay xam te kat ñii daw bañ a tuddee yaddullaahi ji bañ koo tuddee loxoom dem di ko tuddee kattan maanaam li ñu tuddee daw ak daay tàbbi ci jëmb lay firi maanaam loolu lay nuur maanaam ba nga ba nga fa nga doon daw ak fi nga tàbbi ñoo yam parce que kàttan nga ko firee parce wala kon ba da nga doon wax su ma ko taxalalee loxo kon day mel daa ko nuróori doomu kon naa ne kàttan la ñu la kàttan doomu aadama am na ko moom tam kon li nga li nga daw ak fi nga jëm ñoo yam képp wala fi nga jëm sax yées kon lay solution ba mooy saxalal ko lépp lu mu saxal nangul ko ko nam ko waxe nga gëme ko noona bañ caa am sikki sàkka ba noppi nag am yaqin nag ci ne nuróolewu ko nit nuróolewu ko ak ngilleef moo tax mu ne numiruha sarixatan kama atat maa ictiqadina lima lahu iqtadat min gayri taxrifin ci lu dul nu koy jengal jàddkat yi maanaam ñi nanguwut a saxal melokaani suñu borom tabaraka wa taala ñooñu dañuy jengal maanaam maanaam boo demee ci moctasile yi jengal gi léeg-léeg baat bi la ñuy jengal léeg-léeg yi la ñuy jengal maanaam maanaam baat bi ñu koy jengal bokk na ci fi borom bi tabaraka wa taala wa kallama allahu muusa taklima moctasile yi mënuñoo saxal ne borom bi dafa wax parce loolu lu rëy la ci ñoom yàlla du wax kon nu ngeen di jàngee aay boobu ñu ne wa kallama allaha muusa taklima ñu muusa moo wax ak yàlla waaye yàlla waxtu waxtu muusa dàq waxi sunu borom tabaraka wa taala moo tax ba kenn ci ñoom ñëwee jàkkaarloog benn imaam ci ahlu sunna ahlu sunna ne ko waaw yéen aaya ji lu ngeen ci wax ñu ne noonu de dem ne wa kallama muusa taklima maanaam muusa wax na ak yàlla kooka ne ko waaw آية بي دس فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فوق ممنون ينكوي وموسى نيوي يالا وخذ موم وفي من يسوى فبهتا معنى مجيحل تك أما تظلم وخذ كن alquran ci bopam nako borom baye baye ko don mo lolou mom تحريف كو جنغال كو تي والو فيرمو بي نيم نغا جيم كو شانس امنا بو خاني شانس بي تي بوبام لا ني سوبي مانا معنا ني بو نيوي تي في بوم تبارك وتعالى دي واخ بات استوى على الارش استوى بروم بي تبارك وتعالى دا بوم بيندي اسمان سوف با اغال دا فا دم يم تشكو لتيم أرس جل دي جمنا برام ما نجا تشكو برام بتوار سطالة وحنا في جيروم ياري بيرب في القرآن وحنا بدنا بتشن استوى على كتبه استوى على بيجوا هم يم وهم ينمو يتوق ولا ديجو ولا فرن كلاي ولا لأنه هاي تيم لي فيه كن برام بتوار سطالة تيم نارس تيم نمبوالم تعرفش نوكيتكو مبوالم بيني فيه برام بتوار سطالة فيتكو كونه ñooñu luñ wax biñ dikkee foofu ñu ne daal loolu daal faaw ñu seetal ko meneen maanaam mu bokkul ak moomu ndax bu fekkee dañoo wax ne foofa la nekk kon day mel ne daa am place te place moom bindee fa koy am xam nga ba tey xel yi rek mooy dugal doomu aadama yi ci njaaxum ñu ne kon lu ngeen wax ci istawa nu ngeen koy firee ñu ne kon istawlaa istawlaa lu muy firi mooy aacimoon a dara yéen ñaar daal xëccoo ngeen dara ba nga not ko ñëw nangu loola buñ ne istawlaa fulaanun ala kada mooy doon nañ xeex ñoom ñaar kii génne na ko dëkk ba ñëw nangu dëkk ba dëkk kon borom bi tabaraka wa ñu ne istawlaa ala al arsh loolu wax ju ñaaw la doon xëccoo ñu ne leen waaw luy dalil ci loolu ñu ne am na woykat boo xam ne kat daf ne قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق قد استوى بشر على العراق بشر بمخيخ خيخه عراق ويكاد با استوى لا جفنكو كون كوكا استوى بمعنى استولى انا كون موي اكي مو نانغو عراق تجاسي جغل دارت تورون kooku lu ko ahlu sunna tontu la ci jiitu moo di waykat woowu yi ngeen nëbb naan qaala shaair waykat ba al axtal lañ koy wax ab nasraani la du jullit bu leen ko nëbb na feeñ al axtal nasraani la maanaam ci ahlul kitaab la bokk du jullit far te nasaraan yi kenn ku nekk xam na ne lu jëm ci kalima rek muy baat ñoom seen réer foofa la aju ndax ci kalima sunu borom tabaraka wa bi nga xam ne mooy Isa ca la ñu réere ba jaxasoo jàpp ne kon doomu yàlla la foofu kon ñooñu seeni wax kenn ci tegtalu ci lu jëm ci wax ndax dañoo réer foofu ñaareel ba nu ngeen di tegtaloo waxi nasaraan ci loo xam ne dafa bokk ci li gën a jagoo li gën a spécial ci pas-pasi jullit yi ngeen di ko jël di ko tegtaloo waxi nasaraan rawatina axtal moomu jamono jim doon dund ña ca doon dund fekk na waxi arab jaxasoo ba seen wax yooya duñ ca tegtaloo pour wéral dara maanaam ña ko jiitu ñooñu la ñuy ixtijaaj ci seen chér maanaam seen i wax ci arab jàpp nañ ne lu ñu wax rek noona la la jiitu loola waaye ci jamono jamonoy axtal fekk na arab yeeg ajam yi arab yeeg ñu ñoom jaxasoo nañ ba waxi arab yàqu na seen i wax kenn tegtalootu ci ku wax ci ñoom dañ la naan li nga wax foo ko teg waaye duñ jàpp ne waxi arab pire nga wax kon ab nasraani la ñaareel ba waxam piirewul ndax dundul ci jamono ji nga xam ne jamono ji waxi arab piire la woon ñu teg ca ne am na beneen bu bu am solo moo di ñii nga xam ne ñooy jiima tegtaloo wax yi axtal dañ lay wax ne xadiisu yonente bi sal allahu alayhi wa sallam bu fekkee li ñu tudde xadisul ahad kenn du ko istidlaale ci pas-pas aqida xadisul ahad mooy lan mooy xadis boo xam ne mbooloo mu bare bare bare bari solowu ko maanaam daal ñu ko solo xëy na ay ñaari nit ak ñett ak ñeent ñooñu ñoo ko solo ñu ne kooku kon kenn du ci saxal pas-pas ñu ne ah donte xadis bu wér la ñu ne donte xadis bu wér la kon loolu moo tax ñooñu seen méthode boobu xadis yu bëri yu nekk ci Buxaari ak Muslim nga xam ne ci xadis yi gën a wér ci xadis yi lañ bokk bu dee wax ci wàllu pas-pas dañ koy teg ci suuf te loolu kat diis ci jële pas-pas ndax nekkul mutawaatir ne waaw koo xam ne méthode bi nga jaar yow mooy xadis bi bu wéree te nekkul mutawaatir doo ci teg luy nuroog pas-pas noo ñëwee ci waykatub nasaraan boo xam ne lam wax amutub sanad far maanaam amul benn silsila ak càlla la goo xam ne ca ngay jaar ba mu wóor ne moom moo ko wax nga bëgg cee tabax pas-pas xanaa loolu contradiction wax ju safaanoo ngoog mooy wàcc méthode bi nga déclaré woon ne ca nga jaar nga dem ba mu yàgg nga bàyyi ko loolu moo tax boroom beneen tomb bi ci des mooy ëhlu luxa muy borom xam-xam yi nga xam ñooy imaam yu mag yi dëgg nag ci luxa weddi nañ ne istawa muy baatub istawa mën naa bokk ak maana bi ñuy tuddee istawla déglul li imam bu mag bii wax nga xam moom la ñuy wax ibnul arabi kooku imam bu mag la ci ci luga te it borom pas-pasu ahlu sunna la nee na al arabu la taqulu li shay lirajuli istawla على الشيء حتى يكون فيه مضاد فأيهما غلب قيل استولى والله سبحانه وتعالى لا مغالب له نانا أرى بيجفني قبات استولى مي آكمونا نانا فوضي أم كنلك قو قنطر يوم نار نجامار له بمغانيكو door a nangu lam yoroon ñu ne istawla alayhi mu ne te borom bi tabaraka wa taala kenn bëriwut ak moom bëriwut ak kenn moom itam ba daan ko ñu naan nangoo na ci moom aras kon loolu la aimatu loo ko wax foofu <coughs> kon liñ te bëgg a wax foofu mooy taxriif booy saxal melokaani suñu borom tabaraka wa taala bul ko jengal nangu koo firee nam tudd ca baat ba fas maanaam ma nga xam ne moom lay tegtale wutale ko ak nag la muy tegtale ci doomu aadama moo tax mu ne min gayri taxrifin wala taatili bul ko neenal itam kuy taxrif ku nekk muy jengal maanaa ku ne yaa ngi neenal ndax neenal mooy la ci yàlla jublu nga firee ko leneen booba jéem nga koo xañ melokaan moom saxaloon boppam kooku mooy taatil mu ne wa gayri takyifin fu am solo ngoog mooy bul jiim a xam kayfiya ba melokaanu sun borom tabaraka wa taala moom képp moo xam kayfiyatu melokaan ya maanaam qualité ba na muy dikkee melokaan wa moom moo ko xam bu ne day ñëw moo xam na muy dikkee kon bul fa jekk di xalaat naan su fekkee ne bu fajar jotee lay ñëw fii bu fajar jotee feneen bu nekk fële bu fajar jotee bu nekk fële loolu xamoo na muy dikkee bu ñu nee loxo gëmal ne loxo la am waaye xamoo nu muy demee kay fiye ba melokaan wa kenn xamu ko nekk noonu gisiin wa ak yecce des yëpp noonu la melokaan suñu borom tabaraka wa taala mel wala tamsiili bul ko jox misaal moo xam ne yëpp da nga koy nuróolee mbindeef bul ko nuróolee mbindeef bul ne dafa yor loxo bu mel ne loxo nangam wala nga ne day dikk dikkiin wu mel ne nangam déedéet bul wax lu kon bul ko tam tamsil bul ko wutal misaal bul joxe exemple firee ko rek ni ko borom bi tabaraka wa taala nam ko joxee te ca loola mu ne bal qawluna qawlu a'immati alhuda tuuba liman bihadyihim qad ihtada mu ne bal li am kay qawluna sunuy wax nun nun ahlu sunna قول أئمة الهدى موالا إمام يجب يوخ وانا تصفص دي ملوخ تبنت الأسماء والصفات موالا تصفص أبو حنيفة موالا تصفص مالك موالا تصفص الشافعي موالا تصفص أحمد بن حنبل موالا تصفص الأوزاعي ابن جرير الطبري إمام يمد يوئي خمني أي كوري خم خم لن ñoom ñëpp dëppoo nañ ci pas-pas boobu saxal lépp lu borom bi tabaraka wa taala saxal ci ay melokaanam ci alquran wala ci sunna lépp lu mu saxalul ñu bañ ko koo saxalal loolu moo doon seen pas-pas ñoom ñëpp ak ñeñ bokkal jamono ak ñi ñëw seen gannaaw te ci yoon woowu moo tax mu ne suñuy wax mooy waxi yilimaan yu jub ya tuuba mu ne ak texe li man ñeel ne képp koo xam ne qad ihtada gindiku na bi hadiyihim ci seenu gindi maanaam jaar na ca seenu yoon képp ku jaar ci seenu yoon saxal la yàlla sax ci alquranam ak ci sunna yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na kooka ak taxe ñeel na la mu ne nag wa sammida nawa min altawxidi tawxida isbaatin bila tardidi mu ngi lay fàttaliwaat ba mu tuddi woon bunt ba mu ne wa sammi tuddeel tuddeel zannawa ñu lay xeet min al tawxid yi ci tawxid tawxid al isbaat in nee na tudde ko tawxidu isbaat waxoon na leen mooy tawxidu maarifati wal isbaat bila tardidi ci lu dul sikki sàkka bila taraddud ci lu dul deng deng ci lu dul ngay deng deng kon xaaj bii mu la wax nga xam ne moo làmboo tawxidu rububi ak tawxidul asmaa wa sifat noo koy tuddee wala la neexee nga ne mooy tawxidu maarifati wal isbat wala nga ne mooy tawxidu tawxidul isbat loo ci wax rek noonu la قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه قد أفصح برلنا ليرلنا الوحي وحي وهم القرآن السنة المبين والليار وعن بجمال ما نعم القرآن السنة جانجل لن خير ويبم لير نني كون فالتمس تقل الهدى جب المنيرة قل لير جا من بجمال تقل الجب تي وحي تي وحي من القرآن السنة سو بجي جب سفاس فاسك في جفو سيجي كويت من قصاقو فن تي وحي ما نعم القرآن السنة لا تتبع أقوال كل مارد غاب مضل مارق معاند هنا لا تتبع بل تطمك أقوال كل مارد واحد كيف كفتير له غاب هو خمنا دفع مضل هو خمنا دفع maariqin mooy koo xam dafa fël maanaam bët yoon lañ ko jaarloo woon mu bëtt jaar fenn bu bunt bi nekkee nii ci miir bi la gas jaar fa jàll foofu mooy maariq bu ñu siraatul mustaqim yi noonu la ko def muaanidi mooy ku dëgër bopp maanaam bul topp ku mel noonu nee na sa diine daal yow jële ko ci waxyu waaye bul déglu mukk waxi koo xam ne daal fetteerlu waxi ku bew waxi kuy réeralaate waxi ku bët wala jabs wala fël waxi koo xam ne dafa dëgër bopp lànk nanguwut a topp dëgg bul déglu waxi ñooñu mu ne nag fa laysa baada raddi zat tibyaani mithqaalu darratin min al imaani fa laysa baada raddi zat tibyaani ginnaaw leeral gii daal ku ko nanguwul nee na desewoo dara ci ngëm mbir mi nii mu leere kum leere fi yow noonu ba noppi nga wëlbati ko lànk nee na desewoo dara fa laysa nekkul baada raddi da tibiyaani gannaaw delloo gile biral misqaalu darratin luy tolloog aw fépp min al imaani ci ngëm yàlla ku déggul lu leere nii xam li aju ci ruboobi yëpp sunu borom tabaraka wa taala xam lu aju ci ay melokaanam ba noppi nga delloo ko lànk ne man sama xel laay topp nee na foofa moom ngëm yàlla nekkatu yàlla na yàlla musal ci loolu